bi moo am ay xat-xat am ay am ay lëj-lëj ñu yaakaar ne ndawu réew mi am nañu jotu taal dëkk ñu jàkkaar ni ndaw réew mi amuñu xel pour liggéey seen réew pour mun a jëriñ seen réew si le ministre de la naa ne déedéet day jël si keskaay si ñu nga xamante ne mooy compteur moto jakarta yu am jom yi compteur moto yu am fulla culture moo tax moo tax Jakarta yiw a jóg kon su président de la république gardien de la constitution Macky Sall joxe message ne day jàppale askan wi jàppale ndaw ñi si ay formation jàppale ndaw mi li ñu mën a liggéey seen biir réew fekk na yéen conteneur moto Jakarta ngeen jatu ba pare lii nag yàgg nañ kaa def ba formé ci seen mille quatre cent moto Jakarta fii à kon tey suñu dellusee dëkk appelu président de la ñun monsieur le ministre docteur Pape Amadou Ndiaye si collaboration moto Jakarta yi seen président Samba Kuba Samb ñu ñu daw ñu ne balaa ñuy seet ji ñu nga xamante ne di woow ji ñu ñëw pour ñu war leen nu ñuy nappee ñu dem fekk ñu nga xamante ne jàpp nañ ba pare taxaw nañ ba pare li leen desal léegi mooy dem taxaw liggéey ngir jënd réew may conducteur mën a taxi Jakarta yi di lancer appel son excellence le président de la république ak gouvernement ku xool ndawu jakartaawu Sénégal ku xool jakartaawu keeskaay kaw tali bi 300 francs nga di ko dajale ba tabax si kër 300 francs nga di dajale ba am si soxna 300 francs nga am si ba téye sa jabar foofu lañ a jàpp jom jooju ngeen am ak fulla boobu ngeen am taxawaay boobu ngeen am moo tax man Boubacar Diarra ngeen nekk sama tànneef defe naa fii si bi ñu toog ñu may gis ci oto may dawal mooy day fekk ma yor oto ministre bi mais su fekkee loolu amul maa ngi si jakartaa yi guddi ak bëccëg ndax cofeel gu ma am si ñoom ak ngëm bu ma am si ñoom ak taxaw am si biir président Macky Sall son excellence yàgg sa gouvernement ndaw ñuy toog tey si biir salle bi di def cours code de la pour gën a leeral nu ñuy dawalee si kaw tali bi pour lu ñuy yóbbul seeni njaboot ndaw ñi duñu taal ndaw ñi duñu taal dëkk bi ndaw ñi ndaw ñu nga xamante ne tey jii dañuy àndal fitna réew mi kon ndaw mu nga xamante ne day yor moto di taaba taaba di liggéey pour lu mu yóbbul njabootam kooku tey defe naa ku koy jàppale jàppale nga ko am jom jàppale nga am fulla jàppale nga ko jar a jàppale ay borom diplôme ñoo ci nekk ay borom métier ñoo ci nekk ñu am taxawaay ñoo ci nekk ba tax tey jii taxaw nañ takk suñu dëkk ànd ak monsieur le ministre docteur Pape Amadou Ndiaye jeune kees pour engagement bu nga am si réew mi pour jeunes ñi am si lu ñu jàpp formation yi mën a dëgër fépp foo leen woo ñoom leen la fekk si deuxième point bi mooy képp ku nekk si biir salle bi sopp naa la defe naa sopp nga ma te lu ñu soppante du ay caaxaan lu dëggu kenn joxul kenn fii lu nga xamante ne amu ko kenn mënu fee nax kenn mais liggéey booy liggéey bëgg si teg si fulla ak si fayda ak si jom day fekk nga xam fu ngay jaar solo si doomu aadama dafa am solo si kii def circulation daan naa leen ko wax dafa am panneau bu lay wax moytu jaaral fii ndax nga am jàmm am panneau bu lay wax jaaral fii nga mun a moytu ak ñu ngay tasanteel am lu lay wax ne yow mii di ñëw te nga bëgg a teral sa njaboot te lu nga yore oto la wala moto la fexeel ba cent cinquante mètres maa ngi lay wax moytuwul pour nga bañ a am jafe-jafe te loolu lu am solo la kon képp kuy dawal war nga xam mais dafa am lu jiitu si code lu ñuy wax discipline discipline boobu nag lu tax ma di ko xeex di won askan bi ne leen discipline boobu ku ko bëgg a wër kaay wër ko si contrôle moto Jakarta ndax koo xamante ne motom la yore solu ba jekk yëg si motom dem ci dawali ji lu mu yóbbul njabootam kooku ko ëpp yar amul seen yar boobu nag su ngeen ko boolee ak maîtriser code la dafay am solo kon tey lii dañ koy lancé fii di 15 waaye monsieur ministre di leen accompagner incha allahu rabbi si région yëpp seen moniteur Boubacar Diarra ànd si ak seen président Samba Coumba Samb fépp mu ta Jakarta nekk ci Sénégal ñu dinañ takku dem fekk ji leen former leen won leen ne réew mi ku ko war a defar mooy ñun ndaw ñi réew mi ku war a tekkiwu ci raay bi pour réew mi mën a am jàmm ëllëg ñun la waaye lu gën a neex mooy conducteur moto Jakarta talul grève conducteur moto Jakarta talul di dem di topp ay politique bay dem di taal wala di yàq alalu jàmm ndax kuy taaba taaba ngir lu mu yóbbul njabootam kooku talul loolu discipline bi ngeen am nag ba tax tey di ñu ñëw toog pour démarrer cours code de la route si ndigalu ak jàppalewu la ministre docteur Amadou Ndiaye maa ngi ñaan si kàttanu suñu borom ak suñu kilifa diine yi nekk si biir réew mi yàlla na suñu borom jàppale si gungu ba ñu commencé ko ay bismillahi rahmaani rahim eggale ko alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla bu baax waaye nag di sant yàlla sunu mbokku njàngu yi mooy ñu nga xamante ne tey jii mooy sunu mbokku chrétien yi ndax dañu ne dialogue islamo-chrétien ñoom génn nañ seen koor ñaanal nañu réew mi yàlla na yàlla nangu ñaan ñun tey sunu kuur gi ñoo ko doore si dugg si biir koor te koor am na lu ñu ci wax kon ñaari ñaan yooyu ak xol bu laa kooku su dajee defe naa réew mi jàmm dina fi am parce que njiitu réew mi. jàmm rek la bëgg ci biir cours yi dina démarrer tey incha allahu rabbi formation bi dinañ ko démarrer si kaw discipline yéen ñi fi toog ñëpp kenn du leen jàngal discipline waaye nag dafa naa kuy sàkk lu nga xamante ne war nga see mën a teg ëllëg war nga xaa mën a def ak dal ak teey ba ëllëg mun laa jëriñ ay noobul ngeen ay nit ñu ñu askan bi respecté ngeen ay nit ñu bëgg seen askan ngeen te tamit noonu ngeen bëggante seen biir ay chef taree fi daje ay te tey defe naa li histoire si biir réew mi réew tey jii war ngaa jël ak ci les compteurs de mën a teg ci Jakarta parce que bëri na ci ndaje yi ñuy wooyee ndaw muy andi rënk-rënk ci biir réew mi mais ndaje bii kat luy defar réew mi la. comme loolu la nag am leen ngëm-ngëm bi di jàppalante si cours yi si code de la route jafewul les panneaux d'obligation les panneaux d'interdiction les panneaux danger ak panneau bu nga xamante da lay wax fu nga war a taxaw ak foo war a taxaw. te loolu dañ ko war a jàng former si seen bopp ëllëg yéen a yore taxi yi ëllëg yéen a nekk chauffeur administration ëllëg yéen a yor ambulance yi ëllëg yéen a yor leneen ak leneen kon ndaw mu nga xamante ne da ngay toog sa biir réew jëloo gaal amul benn conducteur moto Jakarta bu nga xamante ne tey jii nee damay jël gaal dem dugg ji amu fi amul benn day woote ay ay marche di taal nga di si dem amu fi amul benn compteur moto Jakarta boo gis mu nekk si biir dëkk bi di caaxaan di def naka su dul noonu amu fi kon su fekkee na loolu dem nañu tey ji ba xam ne loolu amu fi ba yéen ñun loolu kon ndaw réew mi war nañaa jël exemple si yéen liggéey bi nag yéen a ko mën a eggale fu nga xamante ne tey jii li ñuy kilifa yi di ñu si naw ma ñu def ko ci defin mu sell man mii di defante yéen ak kuur ba ñu commencé cours ba ñu formé 5400 moto Jakarta wax naa leen ko Jakarta compteur moto Jakarta dama leen a gëm ndax amul ku ma si joxul cër fii ñëpp laa xam cër boobu ñu ma jox di rafetal ci kaw tali bi di dimbalante ci kaw tali bi moo tax fu ma mënta dem si àdduna mënu ma leen mën a mënu ma leen